mars stade Iba Mar Diop grand combat baa ngi nii ginnaaw bi général daane ki nga xamante ni moom moo di Mbaye Tine école de lutte Mor Faram waaye yaakaar na ne nag combat bii mooy combat dañ dëpp drapeau Aziz Ala Ndiaye le 23 mars ki nga xamante moo di Iba Mar dafa mbër doomu parcelle bi ak mambal doomu géejaway te yaakaar naa mambal la léegi pare na fu mu toll nii pël bu rafet combat yi démarré na arbitre souffle na arbitre soufflé na Tapha Mbeur ak ki nga xamante ni si bii di Mame Balla Leewtoo bi di mu ngi ne tekk di dégloonte waaye tam Mame Balla wu dara Tapha Mbeur ah wu ko dara waaw ndeysaan dañoo joxonte cër Mame la dem na Mame Balla nag xale bu mën a bëre la waay waaye kenn du Tapha Mbeur xale bu nekk ci yoonam la waaye mu jox ko cër Tapha Mbeur ñam na bindu góos Tapha ah, dafa ñeme sa waay waaye attention da ngay bëre xale boo xam ne dafa mën a bëre waay lamba la top 5 boo déggee top 5 rek jël yu rëy yooyu moom mii moo ko waral kon Tapha Mbeur nga di ko bàyyi xel waaw ndeysaan waykat yi rek la ñuy dégg supporter yi kenn waxatul nu ne teeg ah dootuñu ko defati xam nga parsaay nag bu di bëre nu leen wax Mame Balla dóor na dóorante nañu Mame Balla ngi yokk waaye nag boo may tuur rek ci suuf la léegi day xool ci kaw yàgg jël ko ci suuf Mame Balla mbott na la mbott ndax dina ci génn waaye Tapha Mbeur boo may tudd na ko dóor deuxième bi xale bi dafa mën a mbott mbott mbott daan na nag Mame Balla toog cinq mbott na Tapha Mbeur jël ba rëy da lay nax da lay nax. Oh, Tapha Mbeur